الشكور إلى ولي المؤمنين والشكور كن يا ولي يا قدير يا نسير للمؤمنين إنك لدي البيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيش بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل ذكره رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وأفراد جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين بركة سرين سالي bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima وجاد كل بعمد وزكار إلى ولي المؤمنين وسكار كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الأدي البشير أنزلت غورا بجانا كل من ليس يكون آمنا يا جسما أنزلت غورا بجانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا زمن أنزلت غورا بجانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نباتنا بأفضل الإيمان ولتنفي الجميع بالأمان حافظنا به وبالإسلام ولتحفظ كل أن المرام خدمت سيد البراء يا أحمد والأنبياء والإسلام من أمدا غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد إلا نبي غد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منشي الكلام على نبي محمد وعلى آله جل وجل واجتنب للمنتقاكما يسر بلا نعاية وقدمة تقبلا يسر لزيد الورى مختارا يا باقيا جانا مختارا نابي وصلي والدشل في أبد الله الذي لك يقود من أبد أقوم صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تسليم واشكر قديا أقدم صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تسليم واشكر قديا نافي وصلي والتسلم بدرام على نبي وداري وشعب waa kër Serigne Touba ak xasida yi ci loolu la ci loolu la dund donc mënuñu nag maanaam di jéem rek fexe lépp loo ne jàpp maanaam ñu siy teg suñu tànk ñu si jéem a góorgóorlu waaw ñu sàkk nag lu si bëri ay tànk la ñu sàkk suñu borom ñu ko jaarale ci yàlla daal maanaam suñu borom dimbali daara ji ba nga xam ne dañ naan daara bi taw nas bi moo def lii Touba daa mi taw nas moom seen mébét lépp lool mu ne nii mi taw nas bi moo ko def Touba loolu moom dëgg-dëgg ñu ngi koy sàkk di sàkk yi ñu taalibe ñu téyal ñu ko ñu dégg rek mu ne nii yoon bi amul jàmbaar ku ñu ko dimbale moo am ñu sàkk nag bokk suñu dimbal noonu bëgg-bëgg lépp loolu la daal maanaam yoon maanaam ñi nga xam ne ñooy taxaw yoonu Sëriñ Touba maanaam sëñ Fallou bi moom man mun naa wax ni man moom laa ko toogal maanaam mun naa ko jox moom mu gën a doon. gis nañ jëm ba sax dafa naan. waaw waaw dëgg la daara bi moom moo la ko ziare. jërëjëfati Cheikh Ahmadou Khadim jaaraama ndax wax dëgg yàlla baaxuñu sax suñu kilifa toog nga yëkkati kàddu waaye jom bu jeetaay bi ko laaj kon ñu ngi lay nuyu baax ci turu mbooloo bi yëpp nga xam ne ñoo bàyyi ko sow di la euh, ziar ci turu turu bi taaxu nasri di la ziar yi ci turu Ousseynou nga xam ne yàlla def na moo jiite mbooloo mi di la ziar ci turu ñi ñëw ñëpp góor yàlla yi ak soxna yi ndax mbooloo mi dafa euh, maanaam mbooloom góor yàlla ak soxna la ñoom ñëpp ci sama kàddu ñu ngi lay nuyu baax Mbàkke ñu amoon yéenay ñëw ak ñëw yëpp Mbàkke ñu ngi lay nuyu baax di la ziar baax xam naa kàddu yi nag kàddu yi cant rek la euh, kàddu yi cant euh, wax dëgg yàlla goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem Mbàkke ñu ngi lay sant baax Mbàkke ndax euh, daaw lañ fi ñëwoon ren jii ni ñëwaat fi waaye ñëw gi ñëwoon daaw ak ñëw gi ren wax dëgg yàlla waroon na loolu Mbàkke gis nañ bu baax a baax ak yokkute zaayiran ba baati nag mbooloo mi yokk na baax baax ci yitte ju rëy ak ci passé kon nag Mbacke ñu ngi lay sant baax a baax a baax di la gërëm baax euh, rawatina nag Mbacke tey ziar bi nga xam ne am nañ ko muy ziar bu kaw njort leer na ma ne bëri na ay daayira yu bëri yuy ziare sëriñ bi waaye duñ ko ziare comme ni ñu ko ziare tey jii te li ñu ko may du leen du rek Mbacke yaa ñu ko may kon Mbacke ñu ngi lay sant bu baax a baax ci loolu di euh, moso bu baax coono yi ak it xat-xat yi ndax xatoon na lool waaye teewut mu àgg na bi ci sëriñ bi ziar ko ziar bu mëcc ay kon Mbacke ñu ngi la ciy sant bu baax la ciy gërëm baax xam ne loolu rek Mbacke yooyu yaa ko may waaw di yeesalaat baax kóllëre gi dox suñu diggante ñu ngi koy yeesalaat bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan it nga nangul ñu ko bu baax a baax waaw am pas-pas ak yéene lépp lu ñuy def ci liggéeyal ku tedd ki rek incha allah dina ci jokkoo ak yow ñu ngi lay sant baax Mbacke euh, suñu jëwriñ it Mbacke nga ñaanal ko baax muy suñ Ousseynou comme ni nga ko waxee liggéey bi yàlla dafa def ñu feetee fii Touba léegi waaye ci suñu loxo la nekkoon waaye yàlla def ba mu tàbbee ci jon tey lim ciy namoon nañ ko bëggoon nañ ko waaye mënuñ ko wax dëgg yàlla tout tànk la waaye comme passif la kon Mbàkke ñu ngi sàkku ci yow nga ñaanal mbooloo mi yëpp comme ni nga ko waxee ay tout tànk lañ yoo xam ne wax dëgg yàlla liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo lay ñor ci la nekk guddi ci yi ñu nekk bëccëg amuñ benn programme lu liggéeyal sëñ Tuubaa rek ban nañ ko ba dañoo da maanaam day day wàcc day wàcc ay kaamil saa su ne waaw ci groupe WhatsApp bi toujours ñu ngi ciy wàcc kaamil ak jànqasee sëñ Tuubaa yi loolu daal moom lañ fa bàyyi su moo leen bàyyi sow ma liggéey ku tedd ki rek Mbàkke kon maanaam mbooloo mi ñoom ñëpp daal ñu ngi sàkk coow ñaan suñu xewal gën a yokk baax a baax a baax am na ñoo xam ne am nañ liggéey am nañu amul liggéey Mbàkke te xam leer nañu ne lépp loo xam ne tab ni sa nopp rek incha na dina saafar woo kon tout temps yi nga xam liggéey ñi nga xam ne dañu def examen ak ñi nga xam ne ñu ngi am lu ñuy sàkku lépp Mbàkke nga defale ci tawfiix baax a baax suñu defal ak jàpp soxna it ñoom it am nañ ay yitte te seen yitte it mooy rek dem kër waaw bëri na ci soxna yu bëri loolu ma sinité ak am am liggéey kon lépp Mbàkke yi ngi koy ñaan euh, ci nu sëriñ bi suñu borom jàpp la lépp ñu ngi lay sant bu baax sa doom jiit de Mohamed ñu ngi koy sant baax a baax saa soo ko boole ak ñun lépp lu yàlla euh, àtte rek da koy daj ngir euh, maanaam liñ bëgg ñu am ko waaw s sëñ Massamba bi ñu ngi koy sant baax ndax lépp ci moom la tàmbalee kon ñu ngi koy gërëm baax di ko sant kon ñu ngi tuub baax ci kàddu yi xam naa guddal bi sax ñu koy jégul ndax suñu aussi bu waxee rek daanaka lépp day daal di mot kon ñu ngi tuub bu baax di jégul asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu jërë ngeen jëf wala noonu waa Miftahul Nasri sax may leen nuyu baax a baax leen ziara leen dalal bu baax a baax leen ñaanal nag tur wuyu leen am ndimbalul sëriñ bi te ak xel ci sëriñ bi ak ci xasaay di yàlla xam na ne tey jii ku gis sëñ bi rek ci tawféexi daayira yi ma ko boolee la tax ndax nartoon a génn waaye ñi jaar si ci man nag fekke ni ma yëgal ko ko tam ne lu mu xat-xat ñoo ñoom dana génn ba gis leen ñecca si mu door leen booleeg sëñ Seex mu war leen kon nag am ngeen tawfeex tey kon nag jàpp naa ne yéen ñëw ñëw mujj ca moom te muy sëñ Tuubaa man ma war a sàkku ci yéen ñaan <laughs> maa ci yéen ñaan waaye rek li ci am solo lool daal mooy ngeen xam ne barab bi seen baraba te it maa ngi ànd ak yéen ci liggéey bi yéen ñaan it ngeen jàppal ma kóllëre gi te xam ne fu ngeen toll maa ngi fa toll ak yéen ànd ci ak yéen it bu ngeen ma ñooru ci dara itam la ca des it wutal naa leen fi barab bi Touba donte sakku leen ko ci waaye dama xam ne war ngeen am seen dalu bopp moo tax wutal naa leen ñeenti ñeenti pàkk yoo xam ne dama bëgg mu doon këru daayira Miftahun Nasr Mouhamed nañ leen ko jox dégg nga kon nag ma naa leen joxe suuf soo xam ne jàpp naa ne ku dul man du leen ko jox ndax ñu ko am dañ koy denc yéen nag am ngeen tawféex da ngeen ko yóbbaale suufi Sëñ Tuubaa yëpp a ngi ci te ñaanu suñ Sëñ ngi ci kon nag loolu mooy sëriñ bi ngeen di yóbbaale da ngeen da ngeen soxlaate rek ngeen ci baax na kon dañ ma indil jàngkat yi ñu jege ma jàng. ولم يصل بنابه الكريم إليه وجهت أنا ختابا مع اليقين وفؤاد تابا نظرت لي فإنك النشير ما أوضعي بي إنك البشير سمعت قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضك بما يسره الحسن قد فجاء بجاه أفضل لمن لله قد لجاء ربي بما يسره الحسن أسأل قد فجاء بجاه أفضل لمن لله قد نجاء حمدي لرب الكريم من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتحا ملأ محمد صلوات الله في أباد عليه في خيره كل به كلا أدعو إله الذي همت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براه ناجيته جلاء ومن وكرمني تكرم هاد وكل لي من لغم بريئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ خذ أمة المصطفى عن كل مفسدات ولترحم الخلق يا من جادهم بداء خذ أمة المصطفى عن كل مفسدات ولترحم الخلق يا من جادهم بداء محمد ارحم جميع الورى يا هاديا رداء ما حوت ما قانها والقلب من قرار بجاه أفضل لمن لله قد لجاء ما حوت ما قانها القلب من درار لجاه أهلا لمن لله قد نجاه jërëjëfante Xaadim Rasul Cheikh Ahmadou Bamba jarama maam Seexo Ibrahima Fall yow yaa wane Bamba Ahmadou Mansour ku mel ni Mansour saxol di futu bañu deena deena balaqu baadina dee baadina yàlla xasida yi ku si ñëwoon loo mën a lem lem lem lem te nga yàbbi ne cam cam capa bi dàq na dàq na lem yow sama sëriñ mayu la sama sëriñ mayu la sama sëriñ mayu la Cheikh Bamba Xadim Rasul Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ Muntaqa dundal taweero sëriñ muntaxa dundal mbàkke dundal te wér balla dundal sëriñ muntaxa dundal te weeroo Serigne Mountakha dundal Mbacké dundal te weer Mbacké balla bilan daayi ala ibni abdillahi simbahayi alhamdulillahi bilan daayi ala ibni abdillahi simbahayi baraadul muxtaari may ja taxwaa إذا على من بنكر يغوى للمجتمع وجدت ما قد سرفا لخيرنا إبليس أغوى شرفا هدمت بادلا بحق فزغ ولله كعد شهيدا ملكت ربي مالكي كليتي آلي لوك هملي واليتيم رددت بالله وبرسولي من عاد بالحق ونلت شوري برأني الله من شرك ومن كل نباق وشهادة الأمين براني من عيب نبي بالنبي صلى عليه بسلام متنبين هو الذي لم أر خيره ولا رأى في شيء عدا والمولى محمد جل عليه بسلام وسيلتي له ورحال الكلام ظراني نغرب تفريان يدوم بأنني قل وهب وقديم لا غدابي وما نكتار ولسانا وجعل قدرا أن يطغى على الهدى فقلبوه ولجعل شاخئ من خلبوه